waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ay siyaare leen baax la àq si weeru koor ñaan yàlla yàlla nangu suñu koor andi ko ñu jàmm waaw émission bi de am na solo sol la waaye nag boo waa ji def loolu de def na la ñaaw ñaaw ñaaw ndax jigéen ko yow da koy suturaal même sax bi ngeen see ba daara ba ngeen tàqali ko tamit on ko see lu baax sant ko gërëm ko ndax bàyyi na kër yu bari ñëw ci yow kon nag lu demee ba yàlla dogal tamit ngeen tàqante koo tamit waroo wax si ñaaw ba muy defee lu ñaaw war nga ko mën a nëbbu suturaal ko waaw ndax jigéen la rek yërëm ndax góor jigéen da koo jël guddi muur ko jël saga tegaat bopp bi mu leen dem crise mu ñëwaat ci sa kër fanaan sa kër kon ñaari guddi fanaan sa sa wala benn guddi mënoo koo fay kon nag daanaka rek lépp na rafet yàlla tamit ah wax dëgg yàlla yàlla dafa ko xolu muñ moom tamit rek nga xam ne li doon def tamit ñaaw na lool ñaaw na lool ñu koy métti bu baax daal li mu def nii ba seetaate la dina ko rucc. salaamaaleykum bon ziar naa leen ah brigade de la femme bon ziar naa leen di kontaan ci seen série yi ni teg bon di tax xale jigéen ñi gi a am fit gën a xam seen droit aussi waaw. instant bi tàng na trop nag tàng na trop ci jigéen yi mais ñoo war a gën xoolaat suñu bopp surtout jigéen ñi xool bu baax fu ñu teg seen tànk xool bu baax ñu milieu de fréquentation yi ñu ñuy fréquenter parce que aussi loolu tam da ci joué foog ñu xool ñu ñuy fréquenter xool yéen façon nit la parce que nit nekkul yow surtout boo nekk xale bu jigéen nekkul yow n'importe qui ngay fréquenter parce que milieu man dama naa milieu de fréquentation yi moo indi yëpp moo indi lu xew la loolu moo koy indi waaw loolu nañ ko xoolaat bu baax loolu nguur bi nag war na jóg war na ci jël matuwaayam bu ma sëkk war na ci jóg parce que affaire mu ngi bëgg ëpp loxo sonn nañ lool sonn nañ fa dëgg yàlla. bon rafetlu naa rafetlu nañ ah seen série bi rafetlu nañ ko bu baax a baax rafetlu nañ ko parce que lii nii dina tax sa jigéen ñi gën a xam bu baax fi ñu teg seen tànk dina gën a tax tamit jigéen ñi mën a moytu bu baax a baax. waaw loolu dina tax génn gi a moytu gën a xam fu ñu teg seen tànk gën a moytu gën a bàyyi xel ci lu bëri bari parce que am nañ jigéen ñi xam ne dañoo négliger peut-être tamit négligence moo leen yóbbee mooy tax lu bëri di leen waaw am jigéen ñoo xamante ni moom loolu moo tax lu bëri di leen dal mais dina tax dina tax jigéen ñi gën a xam seen bopp gën a moytu gën a bàyyi xel ci lu bari bëri waaw. asalaamaaleykum yéen waa man la soxna Jeeg Sall bu Touba maa ngi leen nuyu di leen siyaare di déglu nag seeni information mu doon lu am solo waaye di ñaawlu li nga xamante moo fi jaar yëpp ngeen di ko jàllale mu doon lu metti ndax xale boobu fu bàyyikoo ku ne xam ne ni metti na di siiw nit série boobu nga xamante ni day daw te lu ci ëpp boo xoolee li muy joué moo nekk ci biir kër yi ndax li muy wane rek moo nekk ci biir kër yi parce que bu dee mbindaan yi noonu lañ leen jàppee dangay ñëw ci kër di fa liggéey yow daan sa doole rek moo la indi amoo fa ndey amoo fa baay nga ñëw am confiance ci ki ngay liggéeyal fekk na ñeneen a ngi ci biir kër gi ñoo xamante ni ñu la ñu kër gi ñoom li xool ci yow mooy nañ la yàqal rek sa àdduna teg lu metti ñi seeni bakkan di ci dem ñi seen avenir yàqu xale yi ci bari seen avenir yàqu na lool loolu rek moo ko yàq mu doon lu doy waar ndax suñu xoolee Sénégal ak fi mu toll fi mu ne nii wax dëgg yàlla heure bi waroon na fekk ñu dépassé fii ñu toll waaye rey nañ diw violé nañ diw xale yi duñ leen may sax ñu ñu màgg ngir mën a jëriñ seeni waajur ndax dinañ leen teg metit boo xamante ni il faut seen àddina yàqu Sénégal daal képp kuy yaay fi mu ne nii képp kuy jaboot sexel dalut ñi yeete ngi yeete ñi yëgle ngi yëgle ñi wax a ngi wax mais ñi def daal ba tey ñoom ñoo amul kenn ku saafara seen def-def boobu ndax di def li leen neex te du mujj feen dafa metti ndax xoolal ba fi rey amee ba nëgëni sii viol ba fi amee ba nëgëni sii te mosoo gis kenn kenn kenn koo xamante ni rek mos nañ la ko def ba mujj fenn nii rek nettali rek lay mujjee metti jooy loolu metti na ay sénégalais lañ <clears throat> war nañu xam ni ay jullit lañ dëkkul islam lañ nekk war a nekk royukaay mais ñun boo dee xool fi Sénégal tollu nii. boo fi dëkkee da ngay sax am kersa foo toll da ngay sëngeen ndax lan ñaawteef yu tar ñaawteef yoo xam te ni méngoowul sax ak Sénégal ak ñun ñi nga xamante ni ay jullit leen ay doomu aadama lañ yoo xamante ni ñaawteef saa buñ ko gisee rek dañuy tàqale ko sunu sago maa ngi leen di nuyu bu baax yéen waa Lu Xew TV di leen ci taxawaay bi ngeen taxaw ndax ku leen di déglu de wax dëgg yàlla dina am lu def ci boppam lu bokkul ak ñaawteef yi li ngeen man yépp yeneen koy def jërë ngeen jëf maa ngi leen di siyaar nag bu baax soxna jeeg sàll bu tuubaa waa asalaamaaleykum mbokk mi maa ngi lay siyaara yow mi laaj mbokk jullit yi seeni xalaat man may joxe sama xalaat ci cadre viol mu nekk acte boo xamante ni noobulul ci nit ki koy def ma yaakaar ni loolu du jukkoy gor ma yaakaar ni loolu du jukkoy nit ku noobul ma xool jamono senegaal fi ñu toll nii ñun dañu doon woote ni réew moo xam ni réewu diine réewu lislaam kon ma xool ni senegaal bu ñu toll nii nekk na réew moo xamante ni doy na waar mais man att bi may teg ci ñooñu képp kuy def lu mel noonu rey dafa dagan ci yow parce que lu tax rey dagan ci yow mooy li ngay def nit ki ci lu ñaaw xam nga nga sàkku nit ba pare war koo bàyyi nga am intention rey encore moo tax man tey su may posé tey ci état damay jox doomu aadama yëpp voté tey ci nit ñu mel noonu tey di liggéey yàkkel euh, di liggéey lu ñu mel rey dagan ci ñoom man xalaat boobu dama koy joxe bu baax maa ngi leen di gërëm di sant ci acte bu noble bi tey ngeen lancé jullit yëpp pour ñu ciy wax seen àq di ñëw tamit ci seen beneen page di ci ñëw seen tontu boobu mooy jigéen ñi nga xam ne tey dañuy simmeeku comme na seen nday juree woon loo xam ne mara day taali parce que jigéen léppam awra nga mën a fotowu sa bopp parce que jàppal ni ki ngay fotowu tey mën na bañ a nekk vie privée ñu sànni ko kel faal fa keneen ak keneen publier parce que ki ngay wóolu kooku day wóolu keneen ak keneen dafa nekk loo xam ne rafetul dama yaakaar ni jigéen dafa war a respecté boppam nga xool say moroomi nawle seet ni man mi war naa juddoo fii wala man surtout dëkk boo xam ne yow boo yeewoo da ngay gis ay nit di julli walla nga fekk sa paay doon jullit wala fekk sa yaay doon jullit mu nekk loo xamante ni daal man miy toog fii ci sama biir chambre yor sama téléphone di envoyé vocal njëkk naa naqarlu loolu mais damay lancer appel boo xam ni ñiy jouer théâtre doon star am nañ ci part de responsabilité parce que théâtre jamono bii jouer wuñu loo xam ni nit ñi mën nañ ci yanu lu baax parce que dama koy gis ci théâtre yu bëri yu mel ni ay théâtre saa neex yu sumbulu bi wiri wiri di ko gis tamit ci ay théâtre yoo xam ni daw 2 nekk yoo xam ni daal malgré que daal amul benn njariñ dañuy théâtre bu njëkk da doon yeete mais lépp ci théâtre yi la ko nit ñi di jëlee mu nekk loo xam ne metti na ma ba ci kanamu yàlla vraiment Sénégal léegi daal exemple daal yomb fi daal. sëñ bi nuyu naa la fay naa la taragal naa la maa yaa ngi am jàmm bu baax a baax naan na jàmm yàgg sëñ bi ni nga wax dëgg naa ko ni nga wax am na solo trop si biir net bi si laa naaw si fépp nga wax am na solo xam nga Sénégal toll nañ foo xamante ni xaw ma ñu àq xamul sama nañ toll xaw mu jëg jamono waaye doy da xam ne dañuy def loo xam ne nag su noonu comme ni wax nii di foto foto yoo xam ne nii. te envoyé seen jëkkër photo si at si seen jëkkër war fenn fenn wala réew ma day xaw a doy waar garaaw na trop ndaay loolu moom yéeme na trop trop trop ma nii am na yenn jigéen boo xamante ni kooku nu def mu gën a garaaw envoyé boppam nii jël di jël ay ay di foyee boppam ba mu neexu ba pare dëgg dem envoyé ko faram. xam nga loolu tamit garaaw na